كان سواء اه بقى يا هو bul ma fi dóoralati nit bul ma fi dóoralati nit bul ma fi dóoral kenn dama dëkk ak ay nit chez des voisins bëgguma ñuy dégg ni coow dafa am sama kër voisins yi di ko dégg que ça soit la première et la dernière fois nga fi dóor nit te dootuma la ko waxaat c'est clair. patron c'est vrai c'est vrai mais nit que tu as envoyé cette fois-ci là c'est pas bon nit c'est des mauvais nit hmm. ils sont venus pour te gâter tu peux pas savoir même la gravité de ce qu'ils ont fait ils t'ont gâté même c'est fini même c'est pas ils sont pas venus pour te ils t'ont gâté. lu mu def ba nga koy dóor. bon patron moi j'étais ici assis la fille sort. elle vient en serviette mettre ses cuisses dehors mettre ses wen dehors venir s'arrêter abal ma cara pendant que j'étais en de causer madame. quelle madame. ah patron tu commences à venir. ta madame ma madame notre madame borom kër bi Cathy Chimay c'est avec elle que je causais. Cathy était là. Cathy était a demandé après toi j'ai dit tu es couché elle était prête à monter pour aller te trouver même. la fille est sortie pour montrer que elle, elle est ta Quand il mère na, Dougnati taxi, dao. J'ai poursuivi le taxi un kilomètre. J'ai pas pu trouver le taxi, je suis revenu. Et c'est à cause de On t'a sonné On on va appuyer ton bouton, tu vas faire clink là. On t'a sonné Hein Donne nos piles. Mais nous, tiens, moi. dans la paix, tout le monde Je laisse à faire des bobs là. Enlève ta main devant moi. On a, si on est, tout le monde est dans la paix, tu viens ici, tu, et puis il se lève. Tu t'es propre pour qui, toi Tu es qui Bokar, waxal ak moom ah. amuloo kër tu peux pas aller chez toi. da nga war a xam sa liggéey xam fi war a yem. moo fontoo de. i moo fontoo de. xool sa loxo wàcce sa loxo. i loxo la na def nii. i man yow la yow toi de. eh eh eh oh eh. hey, hey, ah. let's go, hey, hey, let's go, hey, hey, Omar bàyyi ko hey. hey patron bàyyi ko rek dina ko ñaxat léegi. kii dama koy reyal ah. ma waa si kër yi. ah booy bàyyi li nga def booy non non bàyyi li nga def booy. non à la chance que c'est patron yi def booy non bàyyi Omar va. ok c'est bon patron mais dina dina la ñaxal je t'attends. baaxee yoo ko va. patron c'est fini il t'attend waaw toogal waaw toogal. c'est à la chance que patron est là.